élection locale yi résultat yi say euh, résultat yi ñu jot a dégg and nawlé mom mo jito gum fofu ci Kaolack alors euh, ñu bayé la lan ngay indi peut-être par rapport ak ndax dang koy confirmer déjà ces tendances ak yenn impression gam ou waa ma maa ngi leen di nuyu di leen ziar euh, waaw tendance yi mom yéen journalistes yi yéen ma gëna xam li ci am. waaw mais je pense que ñun ay projection lañ amoon comme euh, semaine passée xamoon nañ ne minimum danañ gagné a soixante dix à soixante quinze pour cent mais yaakaar naa tendance bi mën naa dem sax a euh, quatre vingt pour cent et loolu euh, kii la daal vraiment lu lu lu rëy la ci élection locale waaye loolu lépp li ko indi mooy dañoo porter benn message boo xam ne la ko waa yëpp. Euh, dañoo yor dëkk boo xam ne ni xam nañ ne dëkk bu riche la dëkk bu am avenir la bon depuis indépendance mu nekk ci loxol politiciens yoo xam ne nii euh, bon waxuma ne liggéeyuñ waaye fi ñu war a yóbbu dëkk bi yóbbuwuñ ko léegi nag looloo tax ñun biñ jógee ñu wut suñu coalition boobu tuddee ko ànd nawle ànd liggéey euh, te xam nga ne c'est difficile pour homme d'affaires nga nga nga nga dugg ci bëgg a jàkkaarloo ak parti boo xam ne nii parti état la Euh, parti parti euh, parti pouvoir là, excusez-moi parce que état du am parti euh, et mais nag vraiment liñ ci am ndam rek mooy Kaolack waa yi euh, wuyu nañu ci li ñu amoon yaakaar ci ñoom. waaw Serigne ngi wax 80 pour 80 pour cent moom bari na di yow boo am 80 pour cent xanaa ñeneen ñi moom sori nga leen lool amuñu dara. waaw mais li ma la wax kay mooy tendance bi mooy xëy na demee dina gën confirmer mais gagné gagné la rek même bu fekkee ñoo jiitu ñoo gagné mais li ëpp importance rek mooy li ëpp importance mooy man comme li ma wax ñëpp rek du man maa am ndam li ndam li kaw la waaye la plus que ñu jox ñu score plus que ñu xam ne espoir bi compté ci ci ñun war nañ ko war nañ ci gën a góor góorlu parce que mérite bi waa Kaolack waa ñoo koy def te xam nga euh, ñun sunu sunu ñu élèves yi dafa nekk euh, exemple boo xam ne nii ñun amuñ droit à l'erreur parce que dañoo prôné ne ñun ci daara lañ jóge bien que def nañ études yi ñu war a def ñëpp voilà expérience am nañ ko ba noppi mais li ñu gën a xam dañuy wax ne ay dongal daara lañ mm-hmm. léegi loolu tamit beneen côté bi tamit euh, bien que ay opérateur économique lañ opérateur économique on gère des entreprises mais dañ lay gisee comme commerçant bawol bawol tout ça mais loolu lépp bañuñ ko mais compte ni ko yooyu yëpp nag dafa daje ci ñun loolu moo war a tax nag ñun tamit ñu war a góorgóorlu ak équipe bi ñu àndal pour mën a def liggéey bi mais loolu ndax ku dégg ñun ni ñu campagne ni ñu waxee tout ça lii am du surprise ci ñun xam nga di dem élection nekkoon naan danaa gagné ay cinquante pour cent cinquante pour cent nga ne danaa gagné soixante pour cent boo dégloo sama dernière Euh, meeting wax naa ne minimum danañ am soixante dix pour cent et je pense que tendance bi moom confirmé na ne soixante dix pour cent am na léegi nag li ñuy xool mooy fekk ba yeneen bureau yu ñëw euh, yaakaar naa ñun danañ am soixante quinze pour cent mais li ci ëpp importance rek loolu laa mm-hmm. wax dama ne la mooy mm-hmm. euh, liggéey liggéey bi ndax ñun dañoo ànd ànd boo xam ne àndu naw la suñ paree amuñ plan global politique

Alaaji Mansour rupture peut-être bu bu Kaolack am ci li nga xam ne mooy politique yi teg koo opérateur économique la ndongal daara la mais bu ñu ko analyser globalement sànq maa ngi koy wax responsabilité bi ci jeunes yu bari ak ñi nga xamante ne euh, politique la ñuy def euh, euh, ñu fës ci loolu ñu bari ñàkk seen ay localité du ñu wax ne sénégalais yi ñoo bëgg a xaw a bàyyeeku ci ñenn ñoo xam dañuy politique de trop. xam nga suñ suñu buub tey mën naa wax ni maire yi gagné yépp ci Sénégal amul kenn ko ci mérites a mérité localité par rapport à mon expérience bi mu am entreprise yi mu Sénégal xam-xam Sénégal les sociétés mu koy donc doxal commune bu mel Kaolack mënu jaaxal euh, ci chambre de commerce Bonne itam def ay tabac euh, tabax yu am am solo wax naa dama et déjà ça ça lui a donné le d'un maire. c'est ça. oui la mu commencé la mu commencé Kaolack. Euh, benn bi ci des ndongo comme ni ñu koy euh, man dama ci am sàkk. parce que dindiwaat na beneen yoonaat complexe waat te ñëpp xam nañu ni mu ëpp xam-xam yu ñu teg ci ay yenn direction xam nga la direction jox la ko. yow ngay tiitaroo xaw ma jàng naa fële wala jàng naa fee alors yow direction bi nga yor budget mooy tolloog budget benn unité ci li sëriñ boobu jiite léegi yow nga ni kii ndongo daara la xëy na voilà quoi na la def ba jiite non kooku moo yow jiite gis nga gis nga gis nga ñi am ak ubbeeku ci ay domaines yi wuute ñi nga xam ni dañu jéemal seen bopp ba am lu ñu taxawal ñi nga xam ni xamuñu détournement ndax jomm nañu ko ñi nga xam ni xamuñu jalgati alalu askan wi ndax rus nañu ko ñoom ñi doon ñi doon politique ñëpp amul ko ci ëpp sëriñ bu alal car macha allah mais moom ñimewul campagne di génne xaalis di sànni mukk xalaatu ko ñimewul te ñu ànd ak ay nervi di attaqué ay ndaw di xeex ak ñoom ñimewu ko parce que la jiitu ci moom base bi moo tax et Sénégal kooku la soxla tey kii def campagne te du def violence ki yàlla bàyyiwul si alal te du ko fowe kii dimbali nit te kenn du ko yëg kiy jàppale ay école ak jàkka te di woo média mais kooku la ñu soxla léegi nekk naa njiit yomb na mais njiit bu am jikko booy incarné bu population ba dañuy roy sax ci yow ci wàllu jikko et eh, suñu dëkk yi Afrique problème boobu lañu ñu am eh, problème moral la ñu am waaw Fatou. Euh, pour pour pour pour la la coalition Benno Bokk vient de reconnaître sa défaite. à Dakar et à Ziguinchor. Mm. Euh, communiqué boo xam ne euh, ñun ñu ngi ko jëlee ci site d'information Dakar Actu que cellule de communication de la coalition Benno Bokk Yaakaar nee nañu am tendance yo, xam nationale Yo xam jot nañu ko capitale régionale départementale yi am ci yo xamantene am nañu ci ndam waye fu ci mel Dakar ak Ziguinchor ñàkk nañu ko kon ñom loolu lañu wax eh, téréwul nak ñi ngi rafetlu li nga xamné mom moy eh, vitalité de la démocratie sénégalaise bi nga xamné mom moy mooy ci élection locale yu apaisé yu ñu gis donc il il confirme ou bien elle la coalition eh, Benno Bokk Yaakaar confirme la victoire euh, de euh, la coalition Yewwi Askan Wi euh, à Dakar et à Ziguinchor manam ci ci kalamay coach coalition ben Bokk yakar nangu na euh, victoire euh, bu yewi Askan Wi ci Ndakaaru donc Barthélémy Diaz en tête Ziguinchor Ousmane Sonko en tête ñu bàyyi la nga yeggale. ban commentaire loolu lañ nango gum. loolu lañ nango gum loolu lañ nangoo gum. loolu lañ leen jotali juste moy communiquer bobu nonu mhm. euh ñu am ci ay tendance comme ñom li ñu koy amee. Ah, du rek Dakar on l'avait dit depuis le début. <laughs> du dong du dong Dakar ak Ziguinchor du Dakar ak on a également on a également Guédiawaye. Guédiawaye aussi que ko confirmer aussi euh, amener parce que commune de la. commune ville am commune. il est gagné ci commune xamul aussi. l'air. également pour la ville la même chose commune Rufisque Ouest. waaw ville Rufisque. Mhm. pas gagné. Euh, Thiès ah? Thiès Thiès risque de tomber alors. jaajëfal nañ leen ci teewlu bi ngeen di teewlu RTV Dakar yow mi aboneegul aboneel ngeen commenté like suñuy vidéo